c'est sama politique paire bon ñëw fii en tant que jeune responsable du département de Dakar ñu ànd ak suñu frère Bah Diakhaté mu nekk une personne intrépide pondérée une personne courageuse courageuse koo xamante ne du tiit du ragal te il assume toujours ses propos Bah nag c'est un républicain Bah c'est un légaliste ba c'est euh, c'est une personne qui a def euh, koo xamante ne dafa défendre li nga xam ne mooy république Sénégal moment bu mu nekkoon à l'assaut des forces occultes et aujourd'hui tey ñi nga xam ne c'est les tenants di pouvoir éphémère nga xam ne tey ñoom ñoo doon jaay liberté wax ne Sénégal justice bi dafa war a indépendance justice bi dafa libre ñoo ñu tey ñoo obstruer li ñuy wax liberté d'expression ñu tey ñoo jël suñu frère suñu xarit suñu camarade ba jaxate en embastiller ko en prison san raison te tey nag buñ gisee ba jaxate mu taxaw on a vu vrai gis nañ li ko xamante ne ku am njàmbaar la te koo xamante ne dafa taxaw taxawaay bu dëgër te xoful tiitu ragalul ñuy wax la presse internationale la presse nationale et tout tous les ONG qui militent au service des libertés d'expression et les libertés des citoyens mooy ne tey dinañ xam ndax justice bi nga xam ne dañ ko doon attaqué ñoom justice boobu tey dafa am indépendance wala justice boobu tey daa nekk entre les mains de certaines personnes loolu nag tey tranché tey la ñuy tranché par rapport à ça ñun on de des républicains duñ yàq duñ taal parce que nag BRT suñ ko taalee Macky Sall moo ko defar duñ ko def terre ko yàq président Macky Sall moo defar loolu rus nañ loolu nous aurons une honte dañuy am gàcce président Macky Sall investir de milliers et des milliards pour nekk Sénégal nekk un chouchou pour la République nekk pays boo xamante ne référence la au niveau de la zone ouest africaine nekk un pays référence mondiale ñuy ñëw bugg a yàq li nga xam ne président Macky Sall moo ko te ñi nga xam ne dañuy xaar pour que ñu attaqué pour que ñu ñëw mêlé ci affaire bi déstabiliser télé Sénégal ñun on n'est pas des militants de la déstabilisation ñun militants de la paix mais militants du respect de la liberté d'expression et le le militantisme bi nga xam ne quand l'essentiel est en danger s'opposer devient un devoir lii nag contre feu la vous les journalistes non mais Wave yow am nga Wave tey suñ jëloon sa téléphone am nga Wave am ngeen ay Wave seen xarit ak seen am si jàmm dañ leen di envoyer xaalis loolu noonu y a pas de motif ku doon def ay Kopar Express di gagné ay millions et des de francs CFA dans deux jours dans trois jours dans quatre jours mënoo bañ ci mënoo bañ compte jàmbur mënoo bañ ci compte loolu man sama compte sama frère su ma envoyé xaalis dama koy téye sama mag su ma envoyé xaalis dama koy téye sama am si jëng su ma xaaye xaalis dama koy téye compte web du justificatif par rapport à loolu ay waxi naax sandang la loolu taxawul ñun nag je termine mooy ne kilifa diine yi ak yi ak ñi nga xam ne ay ONG lañ ñun dañoo taxawu taxawu Sénégal lépp lu nga xam ne du yoon dinañ taxawu xeex imam imam Ndaw ak ak ak Bah Diakhaté nañ leen libérer définitivement ipso facto dans les conditions les plus immédiates loolu la ñuy ñaax loolu la loolu la mooy suñ combat donc je vous remercie